salaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar leen joxaat seen wàccuwaay bu di ñaan Sénégal na fi jàmm yàgg di ñaan way dawlu yi suñu borom yërëm leen taxaar leen ci àjjana fii daw si ñu feebar tëdd si hôpital si kër yéen a suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàq di bëggeewaat ñëpp di ziar di joxaat ñëpp seen wàccuwaay te seen dossier si si Mambala xale bi nga xam ne moo lëmbee Pikine Mambala nuyu naa kilifa gi maa lay nuyu baax a baax euh, di nuyu sama waa koñ di nuyu waa Pikine bu baax di nuyu waa Thiaré waaw di nuyu aussi waa Waalo di nuyu axlu làmb yëpp waaw di si jiital sama waa écrit di leen nuyu di sant mbër yëpp di leen gërëm di nuyu président Abdou Ndiaye baax baax. la la yoot nii lan la. non non yàlla tere ñun duñ liw ay xale lañ xale du yëg seddaay. waaw ñu ngi kot ko waaw non yàlla tere. Ah, amuñu tiirukaay dañ ko rocc si ñun quoi. benn dafa jeex dañ ko rocc si ñun. te nga ne am nga client boo dul yàqale faw ba faw. te dugg nga si rap Samba Law. waaw client bu bañee nga yàkkale ko boo tab doyee ba mu ko rek. bu bañee nga yàkkale ko. Oh. waaw boo tab doyee rek ba mu wax ko. waa di nga ci am lu la neex si mu wax boobu. ah fa nga koy wàcc kay. beneen oto kay lay wax mais doon boobu. doon boobu incha allah. est-ce que maa la xam ne Modou a la ba tax mu jël ko. non xam naa ko. xam na te li maam jaara. waaw moom dafa dafa lëmbe Télimaam Jaara ma lëmbe Pikine rek yàlla dogal ñu boole ñu waaw moo moo am loo xam dama ko rectifier pour signer contrat bi parce que wax naa ci loo xamante bi ma ñëwee sama sama staff dañ ne ma waroon a waxee ni parce que yebeewuñ la woon loolu waaw yebeewuñ ma loolu mais xëy na xam rek foogu jeunesse moom ma jàpp ma dem wax lu ma wax lu ma neex te or ko bi may dem yebeewuñ ma woon loolu. parce que li ñu ma yebeewoon mooy lenn bu at bi sifflé ku si dàq bëri man ak moom yàlla na la yàlla may ndam. man ak Modou Feugeula ah. konte moom nee na mbër la ay ay magu mbër ak papa mbër yooyu noonu ah. ku si daax bëre man ak moom yàlla na yàlla may ndam incha allahu rabbi slogan boobu génne ngeen ko léegi. waaw slogan boobu ku gëm sa bopp rek moo koy def. ay loolu yàlla tere xam naa li ci man xaaj bi nawul ci moom. kon nga wékk loolu. waaw ma ko wékk mooy maanaam sama staff dafa am ñaar ñoo xamante ne làmb ñooñu ñooy làmb. damay ñëw si ñoom. bëgguñu soo may tudd seen tur muy Abdou Ndiaye ak Père damay ñëw ñoo may jàng ne man lii ak lii ngay def lii ak lii mooy làmb ji boo ñëwee ma def loolu dem bi may sama quatrième combat saa ma ñëwee lañ ma wax loolu laay def am ci te bii wax nañ ma nii ngay ak nii su ma ñëwee làmb ji si kàttanu yàlla loolu ñu ma wax loolu lay def si. parce que moom Balla adversaire yi mu daan jël. ak Modou Feugeleu bi mu jël. am nañ différence de ku xam Modou Feugeleu xam ne day xeex day bëri. xam nga wax naa ko koroon naa ko sin sin bokkul cafin maanaam man bëri naa adversaire bu ne bëri naa ñi ko ma bëreel ñëpp ñoo ko gën a diis parce que man ñi ma bëreel sama trois combats ñoo ma sut moom yàlla dogal na xaw nañoo tolloo te bu suddi am maa ko ma préparé ko nag lu raw li ma doon préparé yeneen combat parce que man combat bu ñëw rek damay yokk ni ma koy préparé ndax moom sax tene na parce que yàlla dogal na suñu combat bi gis gisante nañ ñaari yoon te xam naa ci lu mu ne bu baax. te bëri ne bu baax sax. non xam naa ci lu mu. la nekk si liggéey pare la waaw mais kan moo liggéeyul. bu ma gis nii français ba si kàttanu yàlla bu sumee ko ma sumee ñu taxaw si géew bi ragal naa dinañ ne mambaal dàpp gën gi doole. Modou ku ko xam-xam ne nee na. dafa aay si ku dégg gudd mu ñor. waaw kon nga la man Modou nee ko nga la man man sama premier combat troisième trois combat la la alliance bu jandeer am xaw ma ko mosuma koo xam làmb ja lañ ma daan ko l'enfant noir même chose. doomu jaamur même chose moom nag kon bu ñëwee wax loolu moo tax ma ne ko yow loolu nga wax seen morom waxoon nañ ko. nee na moom miin na Pikine de. non miin miin miin miin xamal la mooy miin. fooy dugg di fa dugg di fa dugg ma fa xam benn yoon nga fa dugg. benn yoon la fa dugg. ba tey ba tey dugg na rek. waaw mais dafa duggaat. duggaat na kay. bu neexee na dolli. bee daa neexoon. daa ñëw non bii moo tax may wax. Ah. non waxuma bële de bee paase na bii moo tax may wax. te bu déggatee kuy dugg Pikine sa da koy naan yee kaay <laughs> bu fa dugg. su moom xam na si kàttanu yàlla si combat Modou Feugeul si boppam bu déggatee kuy wax di waxi Pikine eh. da dalay génne na la kaay jaaral nee. moom nee na ma. Mhm. combat bi si samp jaaga. waaw. sa yow doo sa kuy samp jaaga sa yow ku la xam-xam ne nee na yow doo samp jaaga. seetaan naa ko. ku la xam-xam ne yow doo samp jaaga. c'est que moom problème moo xam lan la. man dafa jël làmb ji naan ay mam bala du gis dóor ak dara ak avant may am licence frappe. laa jàngu dóor man Mame Balla Soro ak Kisma barki alxuraanu karim ku dee ak sa bàmmeel ku nekk dañuy takk gan di soto boo tojee ndoxum xorom ngay lok yàbbi ko dem continuer waat man daanaka avant muy bëree kii fekk na booba roode naa si xeex te lépp Mame Balla moo ko def ci man. boobu da xeex duñ la fay. dama non la parce que loo gis da koy waajal avant. waaw xeex te duñ la fay mais fay bi nag mooy nii. léegi la ñu Mame Balla doon jàngal noonu léegi fay moo nekk nii résultat yi mu ngi feeñ benn par benn moo tax man mosum du ma mbër mu ne damay xeex sa loolu daf may kontaan loo. li ngay wax nii da ngaa pare pour sa diggante mu fa nga samp jaaga rek jifaat waa moom loolu la bëgg te nee na li li naan ku naar ma mboo ko war a si guuxum soow moom yaakaar naa la la lay dese sa sooma du bari. la lay dese sooma du bari di. Ah. waaw bañ a xeex nga xeex. waaw problème bi xamal la. Hmm. moom nee na su ma bëggee xeex naa xeex su ma bëggul xeex dinaa xeex. mais ku bëgg ku yàkkam ci tëdd ak ku bëgg ku mu ku mu mu fanaan tëjal bunt bi du leen boole. mais moom loolu loolu mbo non xiir gi ñun ñoo xam moom suñu xiir la. ah xiir moom koo xam ne doo ko seet. waaw mais mais mais moomul xiir gi. waaw xiir moom koo xam ne doo ko seet. non xiir gi moom mu ngi Pikine côté boobu moom na ci génn xiir ga am Pikine. xiir gi mu jugee. mais xiir gi fan la jugee. xiir fan la jugee laa. ah jugul daw ka sareet waaw fan noo dee déggoo ma de xiir gi fan la jugee xiir daal ku ko xam-xam ne daw ka sareet ko moom sa moom daw ka sareet la moo ni xiir gi si làmb ji xiir gi daal daw ka sareet laa ko xamee si daw ka sareet ko boobaa dinañ ko nangu door ko ko ah, di nga ko nangu xam nga dóorekat ah. dóorekat bis ah. boo ko dóoree rek mu def musiba <laughs> léegi loolu foofu xam nga dóor ko fas moom boo abee xiiram boo ko cawee ragal naa dana def lu fas ba deful de dana def lu fas ba deful. léegi loo bëgg a wax foofu que moom moom si ah, boom Modou Feugueux la moom bon oh, xam naa ragaluma ko. waaw 25 incha allahu rabi nee nga da ngay xees yi sa bopp ku si dàq xeex mën a bëre yàlla na yàlla may ndam. dëggalu ma la xanaa pied gauche muy teg dafa war di non moo moo. nee na dafa aay amul problème bu ñëwee ma tegal ko ko. nee na moom liir na la jàng na la xam na ne pied nga. bu ñëwee ma tegal ko pied waaw da koy lanal ndëgg sërëm ma tegal ko ko te man yow moom lu mu bëgg ma fekk ci ko ci man maanaam man handicapé ma si bëri kan moo handicapé si bëri non moom xaw ma de mais man sama li ne ci man laa man handicapé ma ci bëri parce que yàlla moo na tolloo bi may xale laay bëree tànk mu neex laay teg moom tamit ku nga xam ne tànk bu ko neex lay teg waaw bu ko neexee mais man lu ma neex laay teg te fu ma neex laay bëree te du ma ko teg ba pare làmb ji metti may changé bu ma arbitre bu ma xës ba jiital bëri si moom laay continuer te si laay daan li ngeen di wax yéen ñaar. li ngeen di presse supporter li ngeen di presse amateur wala lu journal da ngeen koy dëggal ci taxaw jixaat bi ngeen di wax. non loolu du piège ñaari xale yoo xam sa yaram day tàng ah baat bi sifflé man li mu wax dinaa ko def si kàttanu yàlla. ay mbër la muy wax la muy def bokkut. dinaa ñëw daan si ko incha allahu rabbi. dégg naa la nga ne nga ne nga ne da ngaa polyvalent mhm. la déggee lu ma la bu ñëwee moom laa koy tegal waaw waaw mais mais jën boo koy jàpp doo sànni onze kase de xam nga ñun yàgg nañoo napp. Ah? ah day ànd ak mépp. Ah. mooy li ma la wax léegi. waaw koy lalal nëgg sërëx. non du nëgg sërëx bi laa koy tegal mu ñëw. mooy mépp bi. wala léegi bu baax bu fa fekkee dina la neex. moom dootu ko nettali moom. wax nga ne yow français nga ku la xam-xam da nga yor. mais yàlla baax na français la ah le 25 décembre dina leer incha allah. mën waaw non man yàlla yàlla ku xam sama làmb mosuma sukkandiku ci kenn Ama Baldé sunu gannaaw la am naa droit ay supporteram ñëw ma ne samay supporter toogaleen ne leen ma dem si ay supporter ñu may supporter ñooy supporter Ama ñuy supporter Ama ñoo may supporter côté boobu moom da siy juum mais man làmb damay mobiliser sa mobilisation bopp boo xamante ne ñii maa leen indi si làmb ji te chaque làmb dama koy wane te bii lay gën a raw incha allah mobilisation bii lay gën a raw si kàttanu yàlla. non fii gars yi neen duñ jël oto. duñ jël oto am na am na ñi war a jóge caara rek bu ñu ñëwee dañu ànd noonu donc diree ko ba stade moom jàmm gën googu mu dëkk. moom nee nañ taxawal 18 car. waaw na taxawal 30 car jàmm gën googu mu dëkk. Hmm. guy ga am na si ñoo xamante ne dañuy ñëw si làmb ji. guy ga guy ga ci man maa ngi fi indi nga ne lan. man maa leen fi indi man maa leen fi indi guy ga la ñuy jugee. jàmm gën ñëw si pare fii guy ga ci boppam. te damay daan ba pare gunge la ñu ñibbi ñoom ba pare incha allah. indi sa bopp problème de. non loolu ay supporter lañ bu ñu defee dajee coono ñëw boo daanee ba pare nga delloo leen ku nekk këram. Ah. waaw. nga daan Modou Feugeule biir jàmm gën ba dugaat biir jàmm gën. dara nekku ci. nit ma moom këram sama naa fa am supporter. biir kër gi amul loolu. waaw daa am seen kër supporter. yàlla tere amu ko moom ah. ñun suñu kër mel ñu noonu. non non suñu waa ka ñun deret moo ñu sonal quoi. ah mu ne fa deret moo xamul tax moom ma am foofu supporter. Ah. parce que moom côté mu dëkkee samay mbokk waal waal ñoo fa dëkk. donc fu bëri ay mbokk yoo xam ne dañoo bokk benn dëkk bokk benn deret léegi moom su yoon lay sukkandiku naan sama mbokk waalo waale moom sa yaayam waalo waala mais papam côté papam du waala waala mais bokkuñu ñun dëkk quoi. yaa mbokk dëkkul suñu dëkk waaw mais moom ñun dëkkal moom samay mbokk axan lañ waaw jour baax du ma fi nekk si lim ay tur wala dara xëy na mën a demee leen te laam dafa xaw a garaaw xam naa ay mbokkam bu baax mais ay mbokkam yitee luñ ma man ak moom ñooy bëre ñun bëre su ma ko daanee pare ñu doon feppale ku nekk ne si jàmm li ngay wax loo gëm la wala looy wax la nii rek waaw lu ñu gëm la lu ñu la te incha allahu rabbi yàlla dañ siy fekk ci si kàttanu yàlla ngeen di ñaari xale. Mhm. promoteur bi xale. waaw moo tax ñu ñëwee ñu ñu def defuñu xale rek bañ a toppandoo bu ñëwee ku ci nekk li ne ci nga génnee ko amateur yi kontaan parce que làmb amateur da si am cër. am na ñoo xamante ne tey bu ñu déggee Modou Feugeule rek day naan ak Mame Balla loolu spécial la mais dañuy sant yàlla quatre combats rek lañ amagum coow li mel nii yaafu suñu nag. bi mooy sama quatrième combat bi mooy cinquième combat moom bi mooy cinquième combat moom it làmb moo dox dox dox ba làmb boole ñu incha allahu rabbi li làmb dox dox ba boole ñu dinaa dox noonu ba daan ko si kàttanu yàlla. yéen ñaar ñëpp mu uh-huh. teg baraada noonu non séntu ma ko nag. pra nañu si bépp côté. mais teg baraada moom di fa naan ay tarxis moom. Ah. séntu ñu ko fa de préparé wuñ loolu. si yow. préparé moom. non ma la. man mën naa bëreet ba suba méttiwul. parce que xale laa su ma lu may gën di tàng damay gën di bëre ndax temps may contact mu ëpp fuuf temps bi may bëre làmb ja kon donc ma demee làmb ja loolu bonus la ci man. bonus la. xeex mooy gën a gaaw sax. moom mooy gën a gaaw bu làmb ji gaawee rek kaaw la. kaaw la. parce que est-ce que Modou la. Modou Feugeula ay lañ fi kaaw ankay pourquoi moom mooy kan. moom bala mun naa kaaw Modou Feugeule ku raw Modou Feugeule sax mën naa kaaw parce que nekk lu yoo xamante ne dañ koy wér si ay nit lu ñu entre la gëm ko mu nekk ci ñun bu jour ba matériel lu mu laaj rek la ñuy génnee teg ko ay uteem lañ yor rek. ay outil waa ay outil la rek bu laajee bëre. yan xeetu outil. outil bëre yaa ngi fi koy génne teg ko nga. bëgg lii laa xamee woon. waaw loolu loo gis suñu outil la parce que loxo rek kel amoon la. waaw waaw jeex na kon bëre outil la. pièce par pièce la quoi. kon léegi a wax foofu Modou Feugeula bu ñëwee ñu tas ko bu ñëwee ñu ko kale yaa ngi fi non du pièce détachée boo xamante nii maanaam dama ko yaafu sa wala dara ah. maanaam pièce détachée la bu ñëwee ma tas ko ah, ñu tas ko ah loolu loolu làmb ji laaj ñu tas ko tasar waaw ko waaw waaw waaw combat bi combat bu mag la. combat bu mag la boo xamante ni ñëpp koy xaar mais man jàpp naa ne man man maa ah bëri grand combat bi. man loolu laa jàpp parce que su ma bëree man sama bopp moom ma si intéressé. làmb ji moomu ñëw su ma ñëwee damay ñëw bëre daan. maanaam vingt mbëri si nekk yow soo nekkul si ñoom. xaar mu si ñëw ba pare ñu ànd ñibbi si incha allahu rabbi. waaw ah. waaw si kàttanu yàlla. Ah, loolu samay wax wax maam Balla la. ñu nga woote. waaw waaw dañuy woowaat waa Pikine rek. parce que ñun euh, caaree lañ juddoo ñëw yoroo pikin màggee fi nekk fi xale bu ndaw di jàng bëre yoroo si keppaaru maam Balla mu jàngul ñu bëri yàlla def àdduna dox àdduna dox mu dem tukki bàyyi ñu fi testam du ñu tette seetaanuñ benn yoon suñu mag la sunu lépp la maanaam man ak moom nekk nañ euh, complice boo xamante ne nii amu ko sax ak rakkam ji mbokkoon day bàyyi kon kooku koo yàgganteel rek nga ko mën a séqal waaw di woo waa mafia curux yëpp di woo tamit waa mafia wiif bi xam naa wiif bi dañ ko sant def ko waa mbaar mi ak waa bopp sa bopp di gërëm euh, waa caare géej ñëpp waa junior family ñoom dañoo am programme suba tànn sax samedi caare fee euh, cinéma caare en face waaw di waa di woo waa caare géej ñëpp di woo waa azel waa azel maa leen woo di woo waa junior family di woo di woo waa ASC Usine ASC Kassel ak Lambaye ak waa Ngeeso di woo waa Caare Géej ñëpp waaw mafia bu nekk Caare Géej waa waa Faxas Joxos ak waa Feeraay maa leen woo ñoom ñëpp bàyyi ma leen waa teeru bi tam maa leen woo waa Azel nag maa woo bu baax a baax sama rakk yooyu nga xamante ne maak ñoom yàlla moo ñu boole ak waa Junior Family leen woo bu baax ñu ñëw di waar waa Pikine ñëpp parce que ñu am lu lul Pikine ak Caare ak Waalo bu ñu bëree képp koo xamante ne fans dama faa nekk suñu bëree ba daan dañ fay jaaraat dégg la nemmeeku la kat jox la sa wàccuwaay parce que loolu lañu am mbër di bëre nga dagg si dem ko dafa metti moo tax ñun toujours yàlla dañuy suturaal heure bu ñu bëree dañuy toppaat tànk koo xamante ne fans club mi ngi fa ñu dem fa nemmeeku ko waxtaan ak waa koñ ba wala ñu waxtaan ak yaayam bu ko defee ñu ñaanal ñun dem ñu ngi ñaan yàlla tournoi yu doon def saa yu ñu bëree di ko def ci combat bi yàlla na ci raw yàlla nu yàlla mel ndam bu sedd guy ñu daan Modou Feugeule jëli bu gaaw ñëw feete ko ak suñu supporter ñëpp képp kuy bëgg maam Balla rek maa lay siyaar di sant sama waa écrit bu baax a baax a baax waaw di siyaar Kisma ak Sora ñoom Bas ñoom Amet Iba Sey ñu koy wax Iba bu maam la moom nit la koo xamante ne moom turam la jaay ngir man bu Iba sëy sama nit ku baax koo xam tama laam da ci sonn doom nday Mamor waaw di sant waa Ngeer Ngeer yëpp di leen woo nag ñu ñëw si làmb ji waa Kébémer tund Ngeer Ngeer yëpp maa leen woo di woo waa Waalo ñëpp di woo waa Pikine ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw ñu wax ñu waajal la vingt cinq incha allah ñu dem yàlla mbay ñu dem si kàttanu yàlla. waa ñëw na ñëw na daanaka une semaine mos des léegi rek maa ngi booy bi neen combat bi def leen ko suba ba leen def une semaine man noonu laa koy préparé saa ma xëyatee dama naan combat bi suba la ba nii nii bu doon suba la damay takk dem bëri ji waaw. looy sensibiliser nga sensibiliser yàq saisi. waaw laam moom dafa metti parce que 16 yooyu nga yàq noonu après yow toor gi yëpp si mbër mi nga koy tegaat rek waaw dëgg nag déception moom nit bu amee déception man naa rey nit sax te du ko yëg waaw man benn côté dama leen comprendre mais su ma soñoon daal làmb bu ñu fa demee képp ku may samay fanta fan si ñeeñ na ci yam bu sa mbër daanee wala mu daan nga génn ndànk dem supporter bi ree dañoo daan sa mbër nga génn dem préparer waat te xam na beneen yoon yàlla dina ko may ndam mais stade beeg siège bi moom jotawuñ dara ak mbër mi ñu wala mbër mu daanu waaw parce que déception na métti na trop ñu ngi ñaan suba yi ñuy bañ yàq parce que loolu ñuy yàq suñu kaw lay dalaal rek parce que maa ngi làmb cité bi mu passé maa ngi dégg mbëri bëri ñii ñu aj leen ñii nangam nii nangam ñu ngi naan CNG fa lépp parce que CNG ñun ñun la fi nekkal dañuy jubbante rek waaw ñu nag dañoo lëj ku ñu jubbante nag ñu jël ay xale leen rek mais toujours duñ jug di tuub di baalu nit boo nekk mu mu jiite la chaque instant da nga parce que yaa ngi yoo xamante ne moom moo lay tegaat ci yoon kon donc ñuy tuubaat rek. di waxaat waa CNG ñu wàññi affaire yi mbëri bëri parce que làmb ji commencé naa neex daal buñ ko dagg na namoon nañ ko feebara fi nekkoon xama ñu dagg ko gars yi ku nekk nekkaat si yeneen bagage kon te tijjiwaan na si jàmm nañ ko organiser rek combat am ñu bëri ko parce que combat neex na trop waaw te ñu làmb dañuy dundal quoi dañuy dundal nga yóbbante ko waaw Modou Feugeula waaw maa lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la wax ne le 25 décembre loo ñëw dool te si kàttanu yàlla incha allahu rabi yàlla mi may ndam si kàttanu yàlla dina ma may sa kaw incha allahu rabi. lu mu lu mu laaj dinañ ko def. bu xeexee a ngi fi. bu xeexee ñu dóor mu daanu. bu bëree su bëree ñu jàpp daan rek. Ah. parce que ñu lépp ngi ci ñun. waaw maa ko <laughs> waaw di bëggee waat ñëpp rek waaw Salim de mosuma wat moo tax maa koy nuyu kon bu baax a baax. waaw basal comme ñi waaw ñi muy wat ñu ne ñu ngi bu baax a baax a baax ñi ngay wat ñoo la nuyu bu baax baax a baax waaw di bëggee waat ñëpp di ziaraat ñëpp joxaat ñëpp sama di ñaanal nag Bébé Fall mu ndaw turandoo yaay Fall Tik Tik loolu dund doyut waaw suñu doom jooju taaw buur géwal surtout tu moo rek anta loolu dund doyul waaw kenn du yow si mim réew bëggee waat la bu baax a baax di la ñaanal fan bu gudd rek at wér gu yaram at wér le di wax nag yàlla mi borom jàmm sax kum jàmmal nga am jàmm yàlla yàlla defal jàmm nag garab bu jàmm ndoxu jàmm boo ko arrosé doy di déglu benn émission ak beneen daanaan fii si SBT Média kese rek dong la doon. waaw maa ngi ja nuyuwaale Xaadim Diagne waaw suñu grand boo xamante ni moom suñuy combat da siy jàpp trop waaw di woo om euh, politiciens yi nekk si secteur bi yëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàpp si kombaa bi waaw Xaadim Diagne ñu ngi koy sant bu baax moo mook Papis amuñu seen fay. parce que ñu ay xale lañ rek bu ñu amee koo xamante ne dañuy teg si benn côté naa ñi lii maa leen koy yoral kon donc loolu dañuy yokk saa yu ñëwee si làmb leer la ñuy wax dem la nga entraîné nga dool li si des yëpp fu ñu ci def kon ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal euh, mardi nag la war a tudd ñu ngi koy ñaanal doom bi yàlla na jur te am ndey ak bàyyi di ko sant bu baax di ko gërëm. noo gisee combat. salaamaaleykum kii mu ngi allah am kii coupe mu ngi coupe mu ngi fii kii xam ngeen adversaire bi mu am. waaw kii Feugueux Feugueux. Modou Feugueux waaw. tey allah abi fas kii mu ngi katu yàlla jëlee alku waat suuf katu day jël ay coup day wàcc. waaw ah, incha bi. day xeex. waaw ah, waaw. day xeex lépp. mu fëgg la est xeex ak moom wóor na. ah fëgg ñeneen amul. fëgg. wallaahi ah, fëgg eh, kese kese kese kese lii mu kese lii baax na kese lii doon ay coup wàcc waaw kati wàlla. kon daal su ma ay coup kese mu wàcc. waaw incha bi. ah say wax waxal yaa ko wax de du samay wax say waxa man. say waxa. waaw say waxa. incha allah ah, wax day leer rek say waxa du samay wax de uh-huh. waaw.